njàqareeg tiis yu waa askanu Sénégal di xëy di yeewoo te kenn yeeyu ci yàb bi moo nekk ci xët wu njëkk Sud Quotidien ubbi leen journal bi Ndakaaroo ngi jooy ci ñàkkum ndox mu metti rek moom kay nag ci root mu metti rek guddeeg bëccëg ci lañ dëkk waa Tuubaa ko danduma lii kay nag moom mooy xanaa dellu cosaan rek Direct News nangoo wax ji ca moom ne ko ki ñëpp di jooy kay du kenn ku dul SDE rek ndax bi mu fi nekkee moom lii musuñoo dal waaye li gën a jaaxal askan wi rek mooy taaral ak noppi gi ci Serigne Mbaye Thiam wane li kay moom moo ëlëm askanu senegal moom kay échec dëgg rek lay firnde échec kese rek lay firnde ci kërug Sen'Eau gi ak Serigne Mbaye Thiam moom war a tekki seen ndombal tànk rek far noppalu bennee ñi échec ba noppi te lànk kandaana dañuñ tekki seen ndombal tànk tañ wóolu leen l'Assemblée ñu ngi ci xët wu njëkk Vox Populi ubbi leen journal bi fu laay jaay Dakar lii day la ay dembooj mi xëy man Mansour Faye ak Diop Sarr fële ca l'Assemblée national wax su su aanañu moom kay ñemee dëgg rek la def na ku ko bàyyi rek mu naan dey sooru ñaari ministre yi waaye ay dem dembooj li ko metteeg li ko naqari lépp ci yëf yi mi ngi xëy yàbbi ko fële ca source aax ubbi leen journal bi ay Aïda nee na 64 milliards yi ne moom lañ def ci ceeb beeg yorin wu bon wi te kenn gisu ko leeral ko jot na bu dee Diouf saar moom coronavirus bi gundaan daat la ci nekkee ne lu yëngu rek mu ne matériel médical yi te yamu ca sax te buñ ko gisoon sax mu neex waaye yamu ca ne néew yi tey la gën a takkar naa sa néew yi yokk ci mim réew bu dakkul Sénégal li dal France Italie dina ko dal du samay kàddu ubbi leen xët wu njëkku vox populi jàngoro jiñ fi nar a jële mu nar ñu fee jële moo ëlëm askanu Sénégal ubbi leen xët wu yokk journal bi source a nañu ci diirub ñeenti fan rek Sénégal am na lu tollu ci fukk ak ñeent ci ay néew vox populi nangoo wax ji ca moom ne ko limba romb na foofu ne ginnaaw ñeenti néew yi ñu amoon barki démb juróom benn néew yokkuwaat na ci démb moom kay nag Sénégal kay fi mu ne nii romb na lu toll ci juróom ñaar fukki néew source a jëlaat wax ji ca moom ne li doy waa dëgg kay nag waxagu leen ko ne réew mi moom sax na fi mu ne nii ay fajkat sax nag dafay nekkatul ndax lu toll ci ñaar fukk ak juróom ñett de santé moom dañ leen quarantaine fële ca Jurbel quotidien nangoo wax ji ca moom ne ko weeru juin wi kay moom dafa tàng jëpp rek ci réewum Sénégal fan ak juróom moom kay bu fekkee nii lañ koy fajee rek ku yebu bàyyi ko journal bi nañu moom kay da ngeen xamul rek ñàkk kersa ak ñàkk teggin gi coronavirus bi nekkee ginnaaw watatu geeg raam ak law gi mu nekkee fii ci biir réew mi di jàngoroy coronavirus bi far na law nag ba dugg palais présidentiel du samay kàddu ubbi leen xar wu njëkku direct news ginnaaw laaleeg gendarme bi ci woppi covid 19 bi amaana tey itam beneen safoor bu defub test mu positif ñi seeni xalaat jeex te amuñu nenn nañ koy fajee ñooñ ci xët wu njëkk l'observateur ubbi leen wu njëkk journal bi di fondation soppe Youssou nduur yi soppe Youssou Ndour yi moom ñoo dajale seeni alal ak seeni man-man takk ko ba mu egg ñu jëndee ko ay matériel yóbbu ko fële ci groupe Futurs Médias ne loolu daal mooy lutte contre Covid 19 <laughs> kon nag ba ëllëg ak jàmm